internet yi duñu seetaan fii ci Sénégo TV tey ñu ngi dalal benn ndaanaan boo xam ne kenn du ko présenté ci arène politique bi di Mouhamed Ngodji Thiam bokk ci nouvelle vision du Sénégal nouvelle vision du Sénégal dafa nekk benn mouvement boo xam ne dafa bokk ci yeewee askan bi Mouhamed euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Sénégo bon maa ngi lay fay euh, di leen gërëm ci invitation bi ma defal yaatal ma ba ma mën a wax ak sénégalais yi maa ngi leen di sant di leen remercier remercier sénégalais yëpp góor jigéen mag ndaw di beral loxo diaspora bi ci seen engagement ci seen pas-pas ci élection yi passé Mouhamed euh, actualité oblige ñu ngi jógee ci démb ci élection législative yi coow li lëmbee réew mi polémique bi ñii kii ne ma gagné kii ne gagné woo démb bu ci mujjee mooy Mimi Touré tête de liste la coalition benn bokk yaakaar woote woon conférence de presse kon nan nga gisee nan nga jàngatee conférence de presse bu mu woote woon alors que moom waroon na xaar yenn organes waaw ma <clears throat> man affaire boo ko déggee pratiquement daf ma jaaxal jaaxal na ma et puis jaaxal na Sénégal yëpp la jaaxal parce que dañu bàyyi ba minuit ba wóor leen tendance yi tendance favorable na ci ñun favorable ci ñoom ñu woo presse bi te li ma gën a naqari sax du loolu bi ñu wootee ndax parti bi foog naa ne Amadou Ba mi ngi ci parti bi Seydou Gueye mi ngi ci parti bi Alioune Ndoye mi ngi ci parti bi Mbaye Ndiaye mi ngi ci parti bi et les autres mais Macky Sall comme moom xëy ñu amar ba am nit lañu xam nañu li xew ay kilifa lañu aussi kenn leen dugal ci ñàkk fay ñàkk solo yooyu moo tax bi ñu leen wooyee demuñu Macky ni ko demal nga génn wax dégg naa sax ci li ma leer ñu ne hésité na ko demal donc li ma wax euh, ay caaxaan la euh, dafa yeb Sénégalais dafa respecté wul Sénégalais yi ñu doon rang ci bureau de vote yi respecté wu leen respecté wul góor jigéen mag ndaw ci réew mi ndax bu demee bay tax di wax loolu vraiment c'est indigne man jaaxal na ma na ma mais nag mi euh, ngi suñu kanam. gis aussi de presse bi am na ñoo xam ne ci ñoom lañu nga xam ne ci mouvement opposition bi na nga loolu. bon opposition moom d'ailleurs il paraît ce soir war nañ def point de presse danañ wax ndax dépouillement yi am nañu ay ku ne ci département yi y' cinq 45 département 46 fu ne am nañ fi représentant ci guddi gi pratiquement kenn tuddul woon PV dañ koy jot exact même bu ñu jot sax PV ku ku dégg gis na rajo bi ak télévision bi même RTS bi nga xamante ne wóor nañu Macky la même TFM wóor nañu TFM Macky Sall àndal mais TFM ñoo njëkk wax Sénégal ni kat mbir tendance leer na yow askan moo nekk paix deux mois am cohabitation bi ñu bëgg muy dëkkandoo bi loolu ñoom TFM wax na ko ci seen début émission waaye ci biir émission bi ci fin bi vers minuit une gis naa ñu changer discours même RTS aussi li ñu wax c'est clair et parce que lu luñ fàng olof nee na kenn ko jeex parce que ñun ñi Sénégal yëpp ay bët lañ yor di xool yor ay nopp di gis donc rt sax confirmé na ne Yewwi Askan Wi gañu na lool leer nañ Racine Talla moo jug ci mu toog téléphoné leen changé leen li ngeen def parce que ñoo gañe tel tel ñu changé parce que ñoom état la ñuy déglu yooyu yëpp ay fee la nga xamante ni Sénégal bi constaté nañ ko kon nag mbir bi du yomb ku foogoon da yomb rek juum nga defal na ko présidentielle yi passé présidentielle yi passé deuxième tour am na am bu leer nañ bu Abdoulaye Dione gé moo gën taxaw président ko génnal mu génn ñoo gagné élection pour cent effectivement bi ñuy bi ñuy defee depuis lépp loolu ñu présenté pour cent te loolu amul de deuxième tour ñëpp xam nañu am na parce que même Pape Alé Niang confirmé na deuxième tour am na mais ñu foxati élection yi boo xoolee sax euh, même département Dakar élection législative passée ñoo gagné mais vers deux heures du matin lañ jox seen résultat c'est-à-dire forme forme yooyu moo war a jeex ci réew mi te forme yooyu moo taal réew mi xam nga réew lu koy taal dafa yomb te ñoom dafa mel ne du ñoom dañuy nelu te yeewaguñu def nañ ko mu defati ko mu jàll mais bii du jàll honnêtement bii du jàll franchement parler bii du jàll du jàll tey mais du jàll ëllëg loolu moom c'est confirmé naka Sénégal xam. Euh, bii gis nañ aussi après bi seen leader bu nekk tête de liste fii nii ci Dakar muy Barthélémy Dias moom avant presque Mimi di génn moom génnoon na ci mbedd Dakar yi di jubilé. Hmm. mais aussi bu muy defee conférence de presse am ay minuit moom génn na def benn déclaration.